داري وثبته بالهادي الوفي ورحمة الله وبركاته ngi leen di delloo nuyoo bu baax di leen ziyaara waaw xam nga comme ni nga ko waxee mbir mi opération la opération bi tam li ko andi mooy ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha loo xam ne dafa sàkk waat ñu gën a setalaat penc mi ci mboolem yi nga xam ne moo fi nekk yooyu nag bokk na ci régler mbirum circulation bi ci boppam euh, bokk na ci itam ñi nga xam ne dañuy taxawalu ci pénc mi di sonal nit ñi di def uh, lu mel ni ay yelwaan ak di kar nit ñi ba duñ mën a def seen i ziar ni mu waree loolu bokk na ci li nga xam ne moo waral opération bi bokk na ci itam gone yi nga xam ne dañuy daw di tëdd ci mbedd yi ak di nekk ci pénc mi loolu itam bokk na ci opération bi bokk na ci opération bi itam ñi nga xam ne dañuy ñëw ci biir pénc mi di fi jaay ak uh, yu ne yu ni demee ni nga xam ne noonu lañ ko teree woon ci pénc bi waaye bokk na ci nag surtout Euh, oto yi nga xam ne dañ fiy taxaw di fi yebe ay clients di fi woote ñu dem ca garage yi coxeur yi ak yu mel noonu opération boobu nag bi liggéey loolu nag bi ko sëriñ bi joxee jaar nañ fa ñu war a jaar informé nañ sëriñ bi ci boppam sax moo woo préfet ba préfet def sous préfet def benn arrêté wax ko maire yi maire yi ñu ngi ci ay liggéey ngir defar sax tableau yi nga xam ne ñoo war a def interdiction yi def nañu barki démb itam benn état des lieux informé nañu itam police ak gendarmerie ba barki démb ci bi ñu waree tàmbali opération bi rek di samedi bi ànd nañ ak sous-préfet ak euh, ndawul police euh, wër mboolem li nga xam ne ñëw wër jumaa ji bedd yëpp yi nga xam ne fi circulation bi war a jaar ñu bokk itam waxtaan waxtaanee li nga xam ne mooy opération bi nga xam ne moom lañu ñu war a def opération boobu nag moom la ñu tàmbali démb ci samdi ji ci fajar bi ñuy julli fajar 4 heures du matin la ñu ñëw ci jumaa ji commencé daa bépp di wër jàpp nañ fi lu bari ci ay xale yoo xam ne dañoo dawoon euh, lu ëpp fukk ak juróom enregistré nañ leen fii ci benn kaye ñoo xam ne dañoo daw jàng ñii tëdd ci mbedd yi ñii di def leneen di taxawaalu am na ci ñu jóge woon kokki am na ci ñu jóge jurbel am na ci ñu jóge ci ay daara ci biir dëkk bi waaye ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa dimbali nañu ba dellu nañ ci seen i njaboot ci démb ci tisbaar itam am na fi ay jigéen ñoo xam ne itam dañu nekk fii di lëjle ci penc mi euh, bokkoon nañ ci ñi nga xam ne te waale woon nañ leen fii démb. yàlla dogal nag mu am ci seen soxna soo xam ne dañ ko cee di ci wàllum ci biir ci biir jigéen ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppoon fii euh, bii mu ñëwee mu mel ne ko anul ak sagoom euh, mel ne koy daanu daal xaw ñoo jaaxal nag tuuti ñu fexe ba dalal ko. ci ni nga xam ne noonu la ñuy dalalee nit ku yiw dalal xelam mu xam ne euh, dara du ko ci fekk lu dul jàmm ak salaam ak tawfiq neexal ko maslaak moom ba mu nangoo waxtaan waaye ci biir ci biir waxtaan wi ñu laaj ko nu mu tudd mu ne faatu saar la tudd ma nga dëkk Cubbeen ca Saloum waaye mi ngi nekkoon Ndakaaru dafa am baj tantaam ju ko yar ju ko yor ndeyam ak baayam dañoo génn àdduna tante jooju nag daf koy sonal moo tax mu génn dem ñu ne ko léegi fexeel bañ jox ñu sa adresse tante jooju ñu waxtaan ak moom ngir nga mën a dellu mu nangu naa joxe numéro sax waaye numéro bi ministre jot kenn mu waxit ne tantam jooju moom xelam xalaatul dellu fa ñu laaj ko noo bëgg a def kon mu ne bëggul sax toog ci dëkk bi waaye nañ ko fexe ba mu dem ci ay bokkam ci cubbeen foofu nag yàlla dogal na amu fa benn numéro téléphone mu jaaxal ñu ba guddi bi ñuy wàcc ñu dénk ko sëñ Mbacke jam yi nga xam ne moo yore caabi jumaa ji mu yóbbu ko këram comme moom kër gu mag la yor te ay jigéen bari fa mën na faa nekk ci biir këram ba mu demee ñu toppatoo ko mu reer xëy ndekki sangu ba set ñëw bi xëy see la xëy lool ak mbégte euh, ñu ngi koy tooñ sax ne ko mbaa kër gi neex na mu ne waaw kër gi mu neex na trop xanaa kon da nga nga fi toog mu ne waaye damay toog waaye nag li ma gënal mooy ma dellu ma dem ca sama nijaay cub cub ci noonu xam nga ne daayira bi yaatu na ay membre yu bare ngi ci dëkk yu bari comme ni def ba xam ba jot kokki def ko ba jot Jurbel def ko ba jot feneen investi noonu la ñuy def itam ba jot ñu dëkk euh, Kër Madiabel ñooñu dañuy jokkale bañ am ko dëkk Cubeen euh, kooka nag bi ñu waxtaanee moom mu di ko gëstu ba xam ay waajuram la ne xam na ay waajuram waaye am na benn magam bu nekk Dakar nañ ko woo mag ja Mouhamed njaay la tudd ñu woo Mouhamed Ndiaye moomu. waxtaan wax ak moom mu ne nañ ko yónnee photom par whatsapp ñu envoyé ko photo bi mu ne waaw kii day sama rakk la sun ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay soxnas oustaz Omar Sall la maa ngi fi yebal léegi sama mel na mbokk mu ñëw foofu dellusi ko comme tudd na ci nag ne soxnas oustaz Omar Sall la soxnas jàmbur bu fekkente ne def nga ba gis ko day rafet na nga woo ki nga xam ne moo ko yor informé ko ne ko sa soxna si nga xam ne dafa réeroon gis nañ ko fii xoolal ndax moom la wala du moom ndax it nit mën na la ne kii sama mbokk la wala nangam nangam waaye nag nga am ñaar ak ñett moo gën a leer ñoo xam ne kenn ñoom ñëpp dañuy bokk luñ wax te duñ yëgoo ndax mbirum nit la ñu door ñu woo commissaire informé ko daal di def nag ay pexe ngir xam numéro Omar Sall rek magam jooju moom xamul numéro Omar Sall ñu woo menn mbokk moo xam ne mi ngi fii ci dëkk bi di sunu mbokk ñu bokk di seq liggéey bi mën naa ko tudd sax ndax lu baax la def muy alaaj Ndiaye seex Ndindi euh, ne ko fexeel ma ba ci bokk yi nga xam ne ñoo nekk Dakar bañ am numéro Oustaz Omar Sall mu mu ne ma waaw léegi def ay jéego moom itam ngir jot ko. ba jot ko. xamal ko ne ko am na ko ñu far fii ci jumaa ji wax nañ ne soxnaam la. waaye ma tox Xidma ci opération bi nga xam ne moom lañ doon def ngir setal penc mi ak jumaa ji ci lañ ko gisee. jox ko sama numéro man mi ngir mu war maa woo yàlla dogal na sax lu jiitu mu woo moom mu woo ma jox ma numéro bi man ma woo ko bu ma ko wooyee ko ne ko dañoo am ko ñu far nag nee na Faat Sarr la tudd dëkk Toubé nangam nangam mu ne ma kon du moom ma ne ko ah te nga euh, tuuti rek yor nga téléphone ñu envoyé la kéem ndax jot nañ magam ju tudd Mouhamed Ndiaye ndax dafa mel ni Ndiaye la sant ndax ki ñu jot mu ne ñoo bokk bàyyi Mouhamed Ndiaye la tudd mu ne ma waaw effectivement am naa numéro WhatsApp ci noonu ma envoyé ko photo bi fekk am na sama rakk di ko photo woon ba yónnee woon ko Mouhamed Ndiaye ba mu jox envoyé ma photo bi man ma envoyé waat ko ko bi ma ko envoyé nag mu ne ma tigi kii la man ko léegi nag mu ma maa ngi yebal léegi ñu ñëw fekk fu ngeen nekk ci jumaa ji mu ne ñu ngi ci biir jumaa ji bu extérieur rek bu laajtee daayira Moukhaddamatoul Khidma danañ ko daal di woowaat commissaire xamal ko ne ko jot nañu borom këram jot nañu itam magam ba danañ ñëw incha allah ñu ngi ñëw mu ne kon léegi suñu excès su borom këram excès parce que booba sax moom mag ji moom ki mu yebaloon ñëw na boobu moom jëlagul décision pour ñëw euh, ginnaaw bi nag moo commissaire ne kon suñu excès nañ leen woo mën nañoo téye soxna si fii lépp nag bi ñëw demee ba xam loolu informé waatuñ soxna ci nekku nag xamal nañ jot nañ say bokk ndax dañ doon bañ mu daw wala muy eh, defaat yu mel ne yëm dañu def daanu wala yu mel noonu waaye dañ ko seere ci suñu biir ñun ba akuk dal ba xamu ci dara di ko toppatoo nag teg ko ci roq boo xam ne bi eh, danañ ko toppatoo ci léppam ba dara du manqué ngir mën a jot ci yu mel noonu waaye alhamdulilahi rabbil alamin daal démb ak tey jàpp nañ fi nag mbooloo bu bari Euh, kii euh, ci chiffre xam naa da ca bari nag ñoo am na ci ñoo xam ne dañ leen a téye ba kii bàyyi leen ñu demee ne ñi nga xam ne ay ay ay daara lañ jàpp nañ ci lu fukk ak juróom ñi nga xam ne ay coxeur lañ ak i nangam jàpp nañ ci lu toll ci ñeen fukk euh, ah, ñi nga xam ne ne ay ay ay ay délinquant lañ moom yoo xam ne dañ doon def lu jubadi moom jox nañ leen police bu ngeen demee police dañ leen jox numéro bi nga xam ne ñëw nañ fi xam naa daal duy nañ fi ba waxal boppam ne na nga xam ne noonu la toll xam nga nag dëkk euh, mbir day jox day dox ci yoon ginnaaw mbirum nit la dëgg la nee na euh, dox nañ ba xam moom ndaw si waxu waxuñu woon ne kii mooy borom këram waaye dox nañ ba xam ne kii mooy boroom këram te dafa demoon te ba mu demee itam gis nañ ci presse bi ñii di wax naan dañ ko kidnappé ñii naan dañ koo nangam façon waxi ni bari na léegi su fekkente ne def nañ ba gis ay ki ay ay bokkam dañ koy jébbal yoon yoon jébbal ko ay bokkam ndax mbir ndax ndax mbir mi demoon na ci yoon bu noppi. ci tënk sëñ laat mun nañ jàpp ni yéen daayira bi muy dugg ci seen i loxo. Mm-hmm. ci anam yu la ci duggee ci la ci génn wax. incha moom bu ñu duggee ci suñuy loxo ci anam yu rafet la ci duggee bu ñu génn ci loxo itam. ci anam rafet la ñuy génne ci suñu loxo incha allahu taala. wax naam alhamdulilah. sëñ Abdoul Ahad alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala rasulillah léegi dégg nañ kàddu yëpp lu seex bi wax wax dëgg yàlla rafet na yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla barke ñun dañoo nekk ndongo Umar Sall man maay chauffeur am man chauffeur laa ndongom laa xaritam laa yàgg nañ. bu ma woowee bu ma mën a ma sàmbkat dégg nañ ne Awa Ndiaye feeñ na Touba def leen tout ngeen dem jël ko ñu ànd ak cameraman kii mooy cameraman Oustaz Oumar Sall kii rakkam la ñu ànd ak moom ñëw fi ko ñu wooyee ñu woo seex bi mu teccal ñu fii ñu ñëw si jumaa ji mu ñëw ñu xaar ñu ne nañu xaar benn fereeram ñëw ñu xaal fereen bu ñëw ñu waxtaan alhamdulilah rafetal nañ gis nañ mbir bi gis nañ ko wante gis nañ ko wax dëgg yàlla alhamdulilah sant nañ yàlla baax yàlla yàlla fay leen hmm. yàlla yàlla barkeel leen yàlla barkeel liggéey yombal Samba Niang seen mbokk Samba Niang may wax fekk ngeen ko ci anam yoo xam alhamdulilah fekk nañ ko anam bu rafet macha allah alhamdulilah wax dëgg yàlla loolu lañ mën a seede ma sahinna illa bi ma amil la wax dëgg yàlla nañ gis hmm. gis ñu moom benn gaañu gaañu gis ñu moom dara wax dëgg yàlla hmm. ñooy sant yàlla la bi nga xam ne jàpp nañ ci ak soxna bu mel ne am nga lu ngeen bokk mën nga jëkkaat ci lu ngeen bokk kooku sama rakk la euh, papam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. Ah. xam nga la tudd. waaw nag euh, fële la sëy Kër Massar. Ah. Omar Sall. Omar Omar Sall. maanaam biñ ñëwee moom gisee nga moom waxtaan ak gis naa ko wax naa ak moom nag moom nanguut a reconnaître kenn moom. dafa mel euh, waaw woo waaw woo buñ ma wooyee tamit euh, euh, buñ ma wooyee ne ma Mouhamed yow la Mouhamed Ndiaye waaw ñu ne ma da xam rakk bu réer may waaw nu tudd ñu ma ne leen Awa Ndiaye ñu ne ma ne Awa Ndiaye la tudd de. ma ne ko ah ñu ne ma waaw ma ne ko est-ce mën naa am photo ñu ne ma waaw léegi mu photo photo ko envoyé ma ko ndax xam nga àdduna bi moom léegi dafa xaw a doy waar mu ko envoyé ma ko bu ma ko envoyé tamit xam naa ne moom la xam naa ne moom la waaw léegi nag moo tax ma déparé Dakar jëm si fii mhm. moo tax ma déparé Dakar jëm si fii quoi